leen ziar di am mbégte jënoog yéen ci seen chaîne leader bi lee d'Equivox TV la chaîne leader mais aussi c'est la chaîne qui informe juste en temps réel comme ni ñu koy waxee rek à chaque fois lépp li nga xamante ni rek actualité la bu nee réew mi ci kàttanu yàlla moom lañ leen di euh, toppal nee jamono ji nag euh, mënuñu wax te waxuñu li nga xamante ni moom mooy politique parce que on est à deux mois des élections présidentielles te nag ñu ñëw seet si fii euh, Pikine koo xam ni kenn dootu ko présenté Sénégal mu nekkoon acteur ak di def yëngu ci li nga xamante ni moom mooy théâtre waaye en même temps dugg ci li nga xamante ni rek moom mooy langue politique bi muy Aline Mbaye di président mouvement jug jot na tey nag moom laa seet si fii waxtaan ak moom euh, sans détour comme ni koy defee à chaque fois rek lépp lu ñuy waxtaanee teg ko ci table bi avant ñuy xuus dañ koy daal di nuyu ziar ko bàyyi ko mu nuyoog ñuy seetaan à travers Equivox TV Aline maa ngi lay nuyu di la ziar di am mbégte janoog yow. waaye ñu ngi lay fay bu baax di la jox sa wàccuwaay di nuyu waa Equivox ñëpp ak techniciens yi nga àndal di wax auzu billah la xawla wala di nuyu mboolem ñu ngi fi fekk gis nga yaa ngi ñu fekk ñuy préparer dem ci coordinateur pour sunu deuxième décaissement freinage di nuyu bu baax ñoom Samba Diakhaté Ngom ñoom sëñ Saliou ñëpp ku nekk ci mouvement jóg jot na rek ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di leen nuyu bu baax waaw. en tant que jeune Aline comme euh, da ngeen di dem dañuy rek tënk li nga xam ne moom mooy waxtaan bi euh, de de de comédien à li nga xamante ni moom mooy politique ban moo dugal ci euh, politique rawatina ngay défendre son excellence le président Macky Sall. waa xam nga dañu yar ci góor day yaa peng yaatu peng bari pexe politique pour man artiste rek ko war a def ndax njëkkee na ko ci bi ñëpp xëyee di xool li ni def moom mi ngi xëy di xool naka lay def ba bégal nit ñi concentré wu tëju jël xelam def ko ci nit ñi bégal leen ba nu kontaan beneen bi politique pour mu dem il faut que ñëpp ñu ñi koy def ñu am métier bañ ko def métier parce que bu fekkee defoo ko métier dina la permettre li ngay def bis boo ci wàccee nga mën a am nga mën a am oyofuk xam ni wàcc nga dellu si sa métier beneen bi réew mi ñun ñoo ko bokk artiste métier la comme menuisier bi comme ki nekk ci bureau comme kiy jaay tey y a un personnage et personnalité bi nag moom mooy théâtre léegi nag il y a ñu di ko wax te booba léegi nit ñi comprendre ko boo ko jëfee nit ñi dinañ ko comprendre Alioune Mbaye artiste comédien le personage mi ngi théâtre mais Alioune Mbaye en tant que la personnalité moom mooy xool lan moo la mën a contribuer ci réewam parce que nit ku nekk ku judd rek figurant nga mais liy tax doon acteur yaa koy jëf. am na solo mais tey en tant que jeune ñu gis la majeure partie des jeunes euh, ñoom gëmatuñ li nga xam ni moom mooy parti au pouvoir yow tey lan moo la euh, maanaam attiré ci li nga xamante ni moom la président Macky Sall euh, def ci réew mi ba tax yow nga jox ko bopp di ko xeexal. loolu sax li nga wax laay njëkk a weddi parce que bu fekkoon majeure partie des jeunes gëmuñu parti bi kon élection yu ñu dem ñu gagné président amul élection bu ñu fi demagul ci réew mi te président ko. cest dañuy jaawale coowal internet ak mbooloo mu bari. voilà xam nga tey président ñi ànd ak moom dañ koo donn ci noppi liggéey inauguré amuñu jotu di détail wala ñuy wax parce que ki nu àndal defal na leen lu loo xamante ni tey ku ku gëmoon sax daj nga ko président Macky Sall lu coow li bari bari kenn du wax liggéeyu ko bi mu fi door a ñëw ku ne xamoon na ni même président yi fi nekkoon bu ñuy liggéey sax dakaar la ñu yem tey boo génnee sous raison bi ñoo gën a gis seen bopp ci li président def ci wàllu infrastructure ak ci lépp am na dëkk yoo xam da nga daan dem gaare dem ba am fooyam gaara oto jël saret léegi da ngay dem ba dugg fi nga bëgg a dugg léegi am na dëkk yoo xam ne amuloon làmp am na dëkk yoo xam fooraay mi ngi noonu gambi gi ku ne xamoon na ni boo daan dem boo déparé heure bi ci féeri bi ngay fanaan léegi bu la neexee dem gambi léegi ñëw hmm? pont Foundiougne bi lépp gis nga maison des jeunes bi mu bi mu inauguré Kaolack barki démb kon kooku bu fekkente ni bilan rek la ñuy wax ak liggéey yell na nit ànd ak moom défendre ko jëm ci bilan parce que dañuy fàtte lenn nañuy faral réew mi bañ a faral nit président Macky Sall en tant que tel wala keneen ku mu doon en tant tel sa jëmm soxalunu li nu soxal mooy li nga ñëw di nu defal ci réew mi ñu mën ko gis kenn du ànd ak nit ngir parce que nangam wala nangam mais da ngay ànd ak moom pour li mu def ci réew mi ñun ay citoyen lan dañuy tukki dañuy génn ñun rôle député lan yor en tant que des artistes comédiens bu nu gisee koo xam mi ngi liggéey mais dañ koy épauler wax ni kii mi ngi liggéey parce que wuute bëgg-bëgg nag mooy jaral marchandise. gisuñu seen bopp ci nguuru président Macky Sall ndaxte wàllum bilan moom kenn dootu ko naatable waaye ci li nga xamante ni moom moo ñeel emploi des jeunes ak yéen ñoomin seen ba xam nga yàlla sax mi bind da dajalewul ñëpp parce que daanu dajul suuf loo gis rek tàgge boo dégg am na jàppal diw man mii di wax ak yow mais am na loo xam ne gisuma sama bopp mais est-ce que loolu laa war a laa war a doxee déedéet mais dangay dox ci li mu def ci réew mi c'est-à-dire intérêt gor du ko def tey président bi mënul kër gu mu dugg fa jox leen corona bi mu amee artistes yi milliards yi leen jox bi bi nu séddoo ku ne ñaata la am ñii trente mille kon loolu mooy wane ni réew kenn du ko séddoo mais dañuy def sa l'essentiel buy tax kenn ku ci nekk gis sa bopp ci liy am ci réew mi ci coronavirus bi rek war nañ ci jàngee ni tey jii kóolute ak njub ndekete mooy alal parce que bu fekkoon artistes yooyu wóolonte nañ te am na njub gu doy ni bu milliards yi bu dajee mu doon dara duñ ko séddoo kon tey dina doon leneen loo xamante dina nekk benn fonds d'appui ci cinéma fonds d'appui man bu ma bëggee def benn projet ma dem lépp ci mais lan moo tax ñu séddoo ko parce boo ko tegoon tey kenn mën na ko lekk wala nangam kon da ngay jàngee ni réew kenn du ko séddoo président kenn du ko topp parce que defal na ma nangam mais da koy topp parce que def na nangam parce que loolu lañ koy doyee tey Macky Sall dafa mën sénégalais yëpp mu xëy jox leen dépense mënu ko yàlla mi nu bind te teg doomu aadama fi mu ko teg te di ko duyal biiram sax xëyul ku nekk mu dem jox la mais dafa lay sant sabablu beneen bi sénégalais yi li ñu bëgg mënul nekk ñun ñëpp bu nekkoon milliardaire ak Sénégal tendance bi fi am tey tabaski bu jotee ñiy jaay xar dañu yokk xar téer yi dañu yokk ñëw màggal bu jotee ñu kam soble baak ñooñu yokk tey ñun ñëpp bu nu amoon milliard di nga gis sénégalais bu tiim milliard am di jooy parce que di nga bëgg dem ci Aline Mbaye mu war la jaay ceeb ci milliard am mu la jaayuma parce que doyeetul dara yàlla moo bind ci àdduna fa inna ma'al yusri yusran inna ma'al yusri yusra tolof tolof ak yolom yolom ñoo fi nekk ñëpp mënuñu nekk milliardaire mais li am solo mooy président buy toog nga liggéey loo xamante ni nit ñi dinañ xam def nga nangam mais Sénégal da ngay bi mu président di toog dañ ni du fi def dara parce que apprenti la mu liggéey ñu ne seeka ñu demaat ba ci ku ne gisuma sam bopp mais lan lan bëgg mais président mënul ku nekk. keroog dégg nga Habib si li mu wax nee na li nga xamante ni def na ko ci wàllu infrastructure yëpp continuité la président Macky euh, président Abdoulaye moo fi tegoon lépp fi leen amul leen loo ni idéem la dafa ñëw rek indi li xam ne moom mooy continuité. sama kilifa sëriñ maam As Mbaye maa ngi koy nuyu dafa soxor ba boo jëndee oto daan la oto yi day gaaw a yàqu. xam nga tey ku defar nga ñëw toog ni mais continuité boobu moo tax ñu war ko saluer parce que continuité bi continuité boo gis ci loxoy nit lay takk parce que kilifa mën na walta du mokk Abdoulaye Wade bu fi bàyyi woon koo xam ni continuer wul liggéey kon ñun fu nu jëm te moom loolu mu wax dafa juum parce que Abdoulaye Wade moo fi taxaw ni maa ngi dem mais kenn du fay salaire ku fayul salaire doo liggéey parce que réew moom ku ne xam na ni chiffre d'affaires bi ci gën a ndaw mooy fay salaire mais ah, président ñëw fay salaire yi yeggali sànce yi ba def loo xamante ni bi ko Abdoulaye Wade doon wax dañu woon day reeb muy teer bi BRT ñëw kon noonu la moom na fexe bokk ci ñiy def continuité moo gën taxaw di xas continuité ni à travers cette plateforme gis naa am ngeen plus de 3 yon de de parrains te pareegoo leen mu mel ni wàllum parrainage bi moom féetee na boobu. waa xam nga parrainage moom dafay justifier ni nit mën na wax lu mu mënul may kenn mënta jëf loo mënul parrainage jëf la. waa léegi nag bu fekkente ni jëf jafa jot nit ñi nañu ànd ki fi président joxoñ parce que tey fal gi képp koo xamante ni euh, ameel nga njukkal président rek ci ab président amadu Ba nga ko a fayee parce que deux mille 2012 nit ñee ko fi tegoon mais moom def na fi loo xamante ni bu nee Amadou Ba laa bëgg a toog pour continuité tey ñun ñu jug fayee ko loolu parce que tey Amadou Ba tamit mënul dem gis ñëpp tey Amadou Ba bu fekkee dafa bëgg a toog ku ne mu wax ak yow ci àdduna mais mënu ko. mooy candidat bi aussi tam. parce que faa mu génn tamit nit ñi xam ni moom la mais à chaque fois dañ ko gis moom derrière rek lay nekk. daanaka li ci gën a bëri président Macky Sall rek mu ngay gis même tournée économique bi passé moom moo moom mooy génn moom mooy wax ba tey sax ñu ngi jot ci information que ni sax nee na ko demalal sa bopp jegeel askan bi wax da askan bi aussi tam du moom moom moo war a convaincre la tax askan bi euh, wóolu ko. waaw dëgg la te bëri naa sax du wax sa bopp waaye nga wax askan loolu moom waxi mbedd la beneen bi mooy. dama ne loolu waxi yéen la rek waxi mbedd la beneen bi mooy il faut ñu xam ni nekkuñu ci campagne bu nu nekkul campagne amoo droit dem naan da ngay campagne parce que réew mi dafa am nu muy doxee mais Amadou Ba ku ne xam na ni bis bu campagne jotee wala pré campagne li mu war a def dina ko def parce que koo xam ni c'est pas la première fois la nekk ci pouvoir Amadou Ba 88 la dugg impôt e domaine jaar ci Abdou Diouf jaar ci Ablaye Wade tey boo xoolee moom mooy premier ministre parce que nguur gi fi nekk jeexagul nguur gi dañ ko fal pour mandat moo tax président di dem tournée économie boo xam moo ko tàmbali woon gox bu ne mu dem fa xam lan mooy seen métit mu subventionné ko ñu def ko moo gënoon a gaaw ba gis ba non loolu du campagne que tey bu ma bëggee toog fii non xam nga jamono dafa yàqu bu ma bëggee président dafa def méthode boo xam ñëpp ko war a saluer parce que bu ma bëggoon toog fii yónni koo xam ne mën na bañ a yegg bu ma demee Kaolack ñëpp wax na ma lii mooy problème Kaolack ma génn xool xayma ñaata la ñu def ko loolu moo waral mu dem fa euh, fu mu ci demaat nii gis nga mu inauguré lan moo ko fa defoon mooy bi mu fa njëkkee dem Amadou Ba nag bu dee def ko fi teg bu nit ñi yàqamti Amadou Ba dañ ko fi teg mu yor boo xoolee Macky Sall lii mu def lan moo tax mu def ko moom moo nekkoon premier ministre ci Abdoulaye Wade Amadou Ba mooy premier ministre kon continuité boobu dinañu permettre tey Amadou Ba bu ñëwee mu def li war a def mais tekkiwul ko Amadou Ba lan fi teg ku ne bëgg sii su naan Amadou Ba te sa propre intérêt personnel nga ci jublu parce que li nga bëgg mooy Amadou Ba ñëw ci yow parce que nangam nanu ànd ak moom xam ni réew mi la ñuy defar gis nga Sénégal bu nu fooyee sunu bopp danoo jëm ci crise danoo nekk ci crise internationale boo xam coronavirus moo ko fi indi ak guerre Ukraine loolu bokkut ak Amadou Ba ak Macky Sall la te yu ci bari sunu dëkk yi ay sous développement lan maanaam amuñu doole tey bu may fréquenté seen kër di fa reeree bu couvre fa amee bu bu bu ma wutulu cere ak meew damay fande parce que du ma permettre ma mën a génn ñëw reer sa kër léegi nag ñu nekk ci crise boobu tey da ngay dem ci dëkk yoo xamante ni tey Dubaay gii ñëpp dem kilo mburu cent la fay jar Gabon gii palaatu ceeb 2000 francs te sama doom jee boo ko joxee du ko jeexal léegi nga am président boo xam ne oyof na ak ci mbaaxam mu subventionné ba ñun lépp lu ñu waroon jënd dafa oyof ci kon tey il faut ñu demal xel bañ a bañ a déglu ñiy diaboliser bari na ci ñoo xamante ni am nan maire ñoo fi laaj xam nga man boo ma nee jox ma sa kër ma defaral la man la am néeg bi defar ko mais xanaa bala ma laa jox kër gi dinaa xemmem lu néeg bi nga ma jox am ñoom ñooñu ñu joxoon meer demal seen gox yi ngeen laajte ba xam nangu nan ñu jox leen réew ñun leen déedéet tey Alioune Sall bu demoon géejawaay suba day gañewaat élection yi parce que ñoom xam ne dañoo def erreur Pikine US kazalika ki remplacé Pape Gorgui Ndong te lan la ci ay diabolisation élection député yi passé dégg ngeen ñuy diaboliser ni waaye président dafa bëgg a dooleel borom ñaari tur yi dem ànd ceeg ay ñoo xamante ni xamuñu sax seen bopp ñu ne ay borom xam-xam lan ba tey ñu ñu am la ñu am assemblée. ndax dégg nga benn jour assemblée ñoom ñu ne nan teg mbiru góor jigéen ci table bi ci ñoom ndax dégg nga ko kon ana lim nooxoon ñoom ñoo waxoon kenn du def commune fonction ba ni président Macky Sall waroo def troisième mandat président xëyu fi ni demul président troisième mandat ñoom kan nga ci gis mu teg maire teg teg député kon bu nu fontoo réew du caaxaan réew doo ko jox koo xamante ni day wër di wax pour propre intérêt boppam réew du loo xamante ni dañ koy fowe te gis nga am na loo xam ni bu xësee ba am c'est di catastrophe tey maire yee ñàkk seen maire fii ak cinq ans ci problème la ñuy dëkk kon loolu jàngat la pour ñun ñu téyewaat suñu président mu yeggali ñu réew mi lii mu def ci tali te nguur gii di ñëw nguuru lekk la parce que amatul lu muy prouver ci tali waaye léegi président lii mu lii mu def ci BRT def ko ci teer bi def ko ci infrastructure ci tali yi buñ ko defee ci lekk ñun ñooy sous-région bi ñoo leen di may ceeb buñ ko defee ci courant sous-région bi ñoo leen di may courant 2011 gis nga fi courant bi ni mu doon def kuy xamit kuy xamit léegi courant bu coupé sax da nga yaakaar sa courant jeex wala nga yaakaar ne am na lu xew parce que courant coupétul kon nit bu fekkee daf fiy nekk liggéey nga bëgg fi nekk di diaboliser buñ ko ñàkkee ñun ñoo koy xañ suñu bopp moo tax population bi nga xamante ne ñun ñooy néew doole ñiy toog dañu yàqamte am seeni milliards ñun ñoo war a xam suñu bopp joxaat président Macky Sall réew mu teg ko ci loxoy Amadou Ba doxal ko Macky Sall bu doon intérêt personnel lay dox danaan bàyyi naa maa ngi dem ku fi mënti toog bu ñëwaatee cinq ans da la fiy jëlee parce que boobaa sénégalais yi dinañ xam mooy kan mais yërëm sénégalais ak nekk le vrai patriote moo tax mu ne réew mi duñ ko bàyyi muy naax saay parce que ñi ngi jublu ci pétrole jublu ci gaz jublu ci zircon boo ko joxee ñoo xam ni comprendre lu guerre lay indi ci réew mi ñun ñu perte loo tax président mu fexe ba tey instauré Amadou Ba pour ñu yeggali PSE bi pour ñu mën a ñëpp mën ci gis seen bopp mais ñu ngi ñu ngi naan jafe-jafe yi yu bëri saafaroogul tey est ñu ko déggee ci ay discours am yëpp moom continuité lay wax li président Macky Sall def continuité bi laa indi xul leen loo xamante ni dinaa ko teg est-ce que tamit loolu gañaloo na koy élection selon toi. waaw mais bala nga naan naam ne fa continuité c'est-à-dire nit ñi ñoo dul comprendre yaa ma wax léegi ne Habib Sy nee na continu xam a état continuité la moo tax mun la continuité tey du ñëw ni li fi Macky defoon lépp dama koy sànni continuité ah, mais sa Seck fan la far. sa Seck taxaw fi mu ne képp ku fi mën a toog pour nga dem il faut nga yeggali programme mu Macky Sall ndax programme bi fi teg baax na beneen bi mu ne président bu fi mën a toog bu Macky Sall dee woote Macky Sall la ñuy njëkk a jël que président bi fi ne ndax li mu def ci noblicité ci ni ba defuma troisième mandat ah Amadou Ba loolu la mën a wax danaan continuité bu toogee moom doxal propre yëfi boppam mais continuité bi bu président sax daanaka dara desatu fi lu dul dund ndax les président def na ko te moom mooy premier ministre bu tekkee président teg premier ministre am ñu orienté wu ci Euh, euh, programme bi ñu teg mais loolu moo tax mu naan continuité mais waxu ko parce que dafay ñëw rek di seetaan parce que Amadou Ba am na ay capacité am Ba am na lu nekk ci moom te Amadou Ba kenn du wax ni dafay dugg ci nguur pour am xaalis wala nangam regg na démb tey soog a ñëw moo gën nga bëgg ko teg ci loxo yi ñoo xamante ni dañuy siiwa lekk. beneen bi président bi mu toogee 2012 ba léegi mu ngi fal ay poste no tey post yi jeexul waaye léegi imagineel moment bii nga xamante ni moment accélération la continuité la nga dem fal koo xam ni musul nekk ci état balaa xayma fi président Macky Sall yem. tàmbalee ba fi mu yem ñu ñooy alku parce que état bi fii ñu toll àdduna tollootul ci di improviser wala di xalaat lu bari action la mooy continuité parce que dëkk àdduna moo metti loolu moo tax Amadou Ba ni la continuité mais waxul pour day ñëw rek ni continuité dangu figira Amadou Ba am na ay qualité mais nag cest à li tax mu jaaxal sénégalais yi mooy noppi gi mu noppi te noppi philosophie la wax la. yéen gëm ngeen ni élection yi Amadou Ba mën na ko mais bien sûr sa waay coolee bari rek mais ñi toog yor seen carte xam nan xam nga sénégalais dafa mat moom du boole dara ki wax day bàyyi ba jëf jot mu wane boppam te loolu yàgg na fi am. mais ah, déet ku pare na moom di nga woote. waaw ku pare ne moom di nga woote parce que woote euh, gën a yomb parrainage parrainage yombul de laa jël gars yi nekkoon ci terrain bi gis nga koo ci gis mi ngi sëngeem di naan ndox parrainage yombul de. parrainage yombul de te sénégalais yi xam nañ ni réew mi fii mu toll jox ko kuy yeggali moo gën jox ko kuy tàmbali beneen bi ku fi ne. wax ma ban opposant moo fi nekk kenn ne ko fi non ku fi ne d' accord ñëw aussi tamit ci li nga xamante ni moom la ñu bëri di waxtaanee mooy euh, Macky la le président Macky Sall autant pour fan yi ni nga gisee noonu lay noonu lay exprimer woo avec colère ñu bëri euh, gis ni dafa mel ni koo xamante ni day wax ak meex ci président boo xamante ni dafay tàggoo dafa waroon di boole wala di wax wax joo xamante ni sax wax ju neex la mais fan yi dañu gis daal euh, nu mu daawul waxee sax mi ngi koy waxee ban remarque nga ci am. Sénégal dañoo neex rek Macky Sall bu génnee ree ñu ne waa day am na ko muy ñaawal moo tax mu ree bu génnee wax ak nangam ñu ne nangam président njabootam. non nan la waxee lu fi nekkul njabootam la wax parce que li mu wax dëgg la remarque la yow remarqué nga ko man remarqué naa ko mënoo am président boo xamante ni dafay liggéey bu njëkk président dafi toog du def dara ay nitam di ko défendre ba mu mel ni dafa def yow président Macky Sall xale bii sax boo ko dabee ci mbedd mi xam na li mu def kon du lu technique wala lu suufe président bu fi mësaan toog bu njëkk daawoo def Euh, ay canalisation parce que projet la boo xam ci suuf la jëm du neex a xayma président mag Sall def na canalisation def na lépp lu mu war a def waa léegi yow mi nekk ci moom nga ni alliéem nga mais ki lay karale daf bëgg nga jàpp tey bu demee ba ñoo xamante ne defuñu fi dara jéemuñu fee def dara yàq réew mi lañ ci nekkee mën a wax bay convaincre nit ñi te yow mi ki nga àndal def a wax mais y'a problème looloo tax mu wax li mu wax tey jii ñiy jariñ président ci communication lekk ñu dërëmam ñi encaissé ay milliards am ñaar lan sàlloo boîte vocale ak tent oto mais pour pourquoi pour lan mais nan génn wax ak askan yu gé dem ci débat yi wax parce que Sénégal dëkk la boo xamante ni nit ñi fi mu ne nii boo tegoon fii ca palaatu gerte woo 10 personnes kompaloog ñoom ñu rang di jënd gerte ku ci ne ay eh yow gerte ga di nga gis ko wax ci gerte gi te lekk lekkagu ci parce que dafa am ñoo xam noonu la demee moo tax influence yooyu jarul xeeb parce que communication la moo tax président yi génn leen ngeen wax lan tax mënu leen wax parce que tamit wax bu jotee noppi sikk la tey nag mu déployé lu tollook ay euh, ay ay oto yu bëree bari pour jox ko ministre du commerce pour mu tasaare ko ci réew mi xool euh, ci li nga xamante ni moom mooy wàllu euh, prix yi nga xamante ni moo nekk ci marché parce que depuis bi ñu joxee prix ba tey gis nañu commerçant yi nangu luñ ko à mois des élections gars yi ne Macky ci ci politique la nekk loolu tamit mën gis nga ci. <laughs> gars yi ne xam nga tey Sénégal dafa am ñoo xam dañ leen war a ci politique. mi syndicat yi yor wàllum jaay ak ñiy jàngale parce que d'habitude bu jubee fii dañuy profitoo ci ki nu far di xeex président bi tax ñuy yokk lépp président fii la fi def ñu woote def ay kii yëpp pour wàññi ba léegi kenn wàññiwu ci nit ñi tamit ñoo war di jàppale président ci côté boobu boo nekkee bitik sa koñ mu mu yokk nga nga woote nga dénoncé ko parce que tey bu nee ceeb yokk na ba wàcc léegi ñu yokk bu nee ceeb wàññi na ñu la sama stock jeexagul kon bu fekkee remarqué na loolu ba accélérer la cadence jël ay oto jox ko ay nit pour ñu mën a visiter nit ñi pour prix yi ñu beese ko mais loolu sunu njariñ la non mais no mais yow dina ko soog a def parce que bi mu nee nan wàññi xam nga tey man bu ma tegee un plus un mais un égal deux laa ci jublu bu ma nee nan wàññi ma jàpp wàññiwunu ba ma ba ma nekk président boo xam ne bàyyi naa sama réew sama xel ba xam li fi xew damay jëlaat beneen stratégie parce que tamit moo gën toog seetaan xam nga lu baax moom heure bu ñëwee lu baax lay doon mi ngi soog a baax ak soogut a baax amul sens mooy li ma la wax rek li tax mu ne ni ne génn leen wax mooy façon wax yi mooy ñi nga xamante ni dañuy yàq parce que léegi Sénégal wax dafa yomb bu njëkk dañuy tànn kan mooy wax léegi ku jug da ngay wax nit ñi bu njëkk dañ lay wax ni ku am kilifa du gàggante koo ci mbedd nga xam ke nga war a déglu pour gëm ko léegi man bu ma jëloon léegi sama vidéo def benn wax nangam képp ku ku wax jooju tombe nga xuloog ni di nga ko de di nga ko exercer pour gaaruwaale nit ñi ñoo xamatul fu nu war a déggee ak fu nu war a waxee léegi nag yow mi nga xamante ni wax mën na la yàqal te liggéey liggéeykat nga dangay jël bépp matuwaay buy tax wax ji bañ a yàq liggéey bi parce que liggéey bi ci askan wi la jëm te kiy wax boppam rek lay waxal askan wi ñoo war a xàmmee loolu nag li leen di jariñ ak liy jariñ kiy wax mhm. ñoo ñëw te duñ la laaj ki oppo principal opposant ndax Ousmane Sonko ku ne xam na ni moom mooy opposant bu mag bu gën a mag fii ci réew mi euh, gis nañ Cour suprême li nga xamante ni noonu la ñu euh, décidé ci moom bokkam ci wàllu élection yi CEDEAO tamit la même chose mais gis nañ euh, li nga xamante ni fooguñu ko woon sax nag muy plan B bu Pastef tabb na ki nga xamante ni moom mooy Bassirou Diomaye fay pour mu nekk candidat commencé nañ koo pare parrainer ñu gis parrainage yi nu mu demee yaa ngi koy gis à travers les statuts ak les réseaux sociaux en 24 heures collecté nañ plus de 1 million loolu yóbbuwul seen fi <laughs> da nga njëkkee ci Ousmane Sonko maa ngi koy ñaanal yàlla mu génn fi mu ne ndax fi ne njabootam lanu lanu wax ba ba ba ba sànk njabootam lanu wax ba ba ba lor ko mu nekk fee mu nekk nit nag bu nekkee kaso drame la parce que tey am na doomam boo xam ni xëy na moom xeebul li bàyyam nekk parce que am na lu mu ko manqué ku ne da nga koy xool ci sa bopp. moom yàlla na ko yàlla génne foofu amatuma lu may wax ci moom nag ndax da ngay wax ci actualité te Ousmane Sonko nekkatul actualité. Aliou Mbaye loolu moom je ne suis parce que nag mënuñoo ñëw te duñ ci waxtaan ndaxte ku ne xam na ne actualité la nag réew mi. li li may wax ci moom mooy ñaanal ko mu génn fi mu nekk mbër nag boo ko daanee ba pare saa doo fa nekk nag di ko kokkali wala nga di ko mbéjaat moom dugg na ci li mu dugg ba dugal boppam. nekkatuñu ci loolu Pastef amatul ancien Pastef lay wax il faut que tamit yéen ngeen xam li actualité nga di ko wax mën nga wax ci jomaay xaw ma jommi fay xaw ma lan parce que xëy na danoo bëgg réew mi jommi moo tax ñu teg ni jommi leen parce que tey bi bi président di teg Amadou Ba ñoom lan lan waxoon ah waruñu waru leen tànnal candidat di wax tey ñoom nit nekk fële tànnal leen ñu ciy naf-nafi c'est-à-dire il faut gis nga gis nga gis nga mouvement ñooñu xeew yi danoo égoïste te sénégalais yi ñu ngi comprendre ni danoo égoïste tey jii Papa Ndiaye fii la fi dem bërki dem boo Ndiaye ni dinaa dénoncer ñi xamante ni ñooy jël xale yi di leen monter ñuy dem ci géej gi pour diaboliser président dinaa wax ñi nga xamante ni ñoo nekk di wax naan gendarmerie nangam ak nangam ñoom ñëpp ñu wëlbati di ko saaga tey boo nee Ousmane Sonko ku baax la ñoom ñëpp ni gongo boo nee nangam ñu ne nangam gis nga gis nga nit boo bëggee mu nekk sa président déjà yow da nga war a fexe moom mu bàyyi xel ñi muy jiite ni am nan kàddu ci moom gis nga Ousmane Sonko yàlla na ko yàlla sutura mais bis bu nekkee président mooy nekk président bi gën sonn ci àdduna parce que ñi mu nekkal xamuñu luy wax dëgg li nu bëgg a dégg lan bëgg nit bu fekkee da nga koy jiit da nga dafa nekk sa njiit am na am na lu mu war a ragalee maanaam lu war a bàyyee xel mbooloo mi ba bu ëllëgee bu jiitee mu xam naka lay def mais dañ lay pousse di la jox ay pouvoir yoo xamante ni mérité woo ko ba nga yéeg nag defee nu la neex ñu naan daf ñu war fekk ñun ñoo war a xoolaat suñu bopp parce que mënuñu Abdoulaye daf ñu war Senghor daf ñu war Macky Sall daf ñu war mais keneen kuy yéeg xanaa bala ñu laa fal dinañ faral réew mi bañ a faral nit ndéem réew boo dofee dangay ngay doppa poor boo doful dof pour boo ndey boo yegee ci nguur waaye léegi ñu bëgg jël benn nit jox ko pouvoir boo xam ni parce que ci xeex rek la génnee droit bi tamit parrainé euh, seen seen numéro 2 aussi te ku ne xam na ni Diomaye mooy numéro 2 bu ex baax na seen numéro 2 nañ ñëw man daal li ma bëgg mooy kuy ñëw it élection moom xam nga lan la jaru xeex jaru xuloo fair play la vote la mooy seen numéro 2 nan ko pare parrainé moom day tax pare bu nu paree ban jàkkaarloo kër meilleur gañ comme ñoom ñoom moom réew mi. est-ce que est que du danger ci yéen. amul luy nekk danger ci ñun ku miin ndam kay ki miinagul ndam baa xamul ndam ñoom li coow li bari fan nga mës gis ñu gañe wax ma ban élection lan gagné <laughs> déedéet gagné wuñ de danoo am nombre mais mu suñu gañe président Macky Sall ci élection loolu la sénégalais yi war a xam te bi passé bi leen Abdoulaye Wade di fekkee sax ñu nekk ñaar teewul Macky leen dóor te tey Abdoulaye Wade génnaat na ci ñoom sawaay waay élection jëru xuloo jëru xeex maa la mën mënoo ma tey bu fekkoon ñoom ñoo réew mi jaru ñuy dem élection yaa ngi yeey sa bopp bu ne woon fàng kenn du ko jeex mais du fàng mooy ba internet bi bu netoon sa waay dina waaye doo ma nga toog internet bi netul ay vie lay lijjanti xam la laa bëgg ñu xam ko comme internet bi wane na ah bisimilah nan def seen parrainage bu nu paree ñu dem élection ñu xool que le meilleur jaru xeex jaru xulo xam nga ñoom ñoo ñëw ci politique indi ci lu ci mësaam politique du xool xel la nit ku nekk am na droit ànd ak ku ko neex yàlla mi bind jaam ñi am na ñoo xam dañ ni ko amoo mu am daluk maslaa ni teg parce que xam na ni wiiri wiiri jaari ndaar yi kon bu fekkee élection rek la di mbiru politique ku nekk war a défendre sa mbër mais jëru xeex jëru xulo mais koo xamante ni boo nee diw laa faral mu bëgg la rey kooku boo ko joxee réew dina fekk nit fi mu toog mu rindi ko parce que ñoom xamuñu lan mooy politique dañ ci dugg rek par mécontent ànd coog seeni nit ñu mer ñëw di wax te politique du loolu réew loolu defaru ko mbër sax bu meree songu nawleem dañ koy mbot kenn ñu gis gi may Saña bi mu seetee mooy sama dernière question yaakaar naa temps bi <laughs> gis nañ démb li nga xamante ni loolu la bind ci page Facebook am seet na Ousmane Sonko il est bien mu ngi ci jàmm mu ngi ci salaam euh, mu mel ni Ousmane Sonko génn na ci stratégie xeex bi nga xamante ni moom la moom la euh, dëgmaloon mi grève de la faim mais bu fa seenee xeex jàkkaarloo président Macky Sall tey lu ko gisee lool gi mari wax xam nga koo xam ni xeex bu mu song bu nee tey lay gañe mu bàyyi kooku ban xeex lay gañe bay gañe président Macky Sall président Macky Sall dafa am lu ko doy xeex te wane na ko mooy liggéey xam nga nit ñi dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy comparer loo xam ne du comparaison président Macky sàll mosoo dégg mu wax ni nangam moom ci li mu nekk la nekk moo tax ma tuddee ko borom noppi liggéey inauguré moom li muy jëf mat na ko xeex mat na ko xuloo looloo nga koy xeexal looloo nga koy xulool ki ñëwoon nag ñëpp fekk fi façon politique bu ne mu jël politique boo xamante ni sa waay bu doon rab da nga naan xàkkoor la ay saagaak yooyu bu lam ca daj nag gatsa gatsa mu mujjee ci kawam. loolu kon amul kenn ku muy rapproché bu fekkee ni wér naak wérul loolu moom la engagé parce que moom moo ni woon daf feebar ñun gisuñu feebar bu xëyaatee ni wér na yàlla na ko yàlla defal jàmm parce que jàmm rek lañ ko yéene waaw ku kantoo nag réew mi fexe nan ba dof yëpp sax ñu ñu boole leen ci mbir mi ba ku rek ñu ne nàngam réew mi moom fi mu ne lu fi am nan dem rek comme réew mi par par loola amatul dëgg ku nekk yaa ngi yor sa dëgg ku ne na féete fi ko neex rek mais Sénégal bu fekkoon Sénégal tey ay Guy Marius Sagna moomu du sax am fitu naan day day yootu réew mi mais Sénégal ñooy jay ginaar ba muy mbëkkee ah ceeb xanaa fi ah ban pala waa ño ah baax na xam nga ñoom saay ñoom ñu ngi noonu rek ñi ngi gën a feeñ xam nga dama def sénégalais yi dama ngi leen di suivre rek waaw waaye ñoom bu tayee ñu ne yoon baaxul bu subaa ñu ne nan xaar yoon bu tayee ñu ne diw rek sunu candidat bu demul duñ dem wala élection du am bu subaa ñu ne plan B plan B bi ñi leen ko digaloon yàgg na mais comme ñoom xamuñu fu ñu jëm doxuñu ci xam-xam dañuy dox ci xët-xët booy dox ci xët-xët nag da ngay mujj faqastalu wala nga dugg ci pax baa nga daanu rek. émission balance bi nga xamante dañ koo euh, suspendre ginnaaw euh, Pape Ndiaye génn bi nga xamante ni def na ko ñu bëri naan dañ koo fay ak fayuñu ko tey ñu suspender loolu ban jàngat nga ci am selon Pape Ndiaye bi doon sànni xeer état bu Sénégal ñëwaat fël ci côté boo xamante ni kenn xaaru ko ko fa woon ba tax émission boobu selon li nga xamante noonu lañ jotee information yi daal dañ ko dañ koo suspendre ah, mooy li ma la wax rek réew mi moo toll ci réew moo xam ni ñi war a defar ñoo njëkk a yàq muy la presse parce que tey bu demee ba presse gis nga gi nga sénégalais yi population bi ñoo war a yeewu tey téléphone Sonko yi gisoon ngeen ci ay journalistes yoo xam ñi ngi doon jot ay Wave ak yi Orange Money loolu moo feeñaat rek Papa Ndiaye tey bu continé woon di xas état kenn du ko wax dara moo tax ñu war a xam ni président bu baax rek la nekkal moom fi mu ne ku génn xas Macky Sall ba géex kenn du la dara boo génnee wax dara ci Sonko ñu teg la pression saaga la dàq la fa nga nekk loolu mooy Sénégal nañ ci woy bu fekkee mën na dem Papa Ndiaye li mu wax dem na ba xam ni moom moo doon def chroniqueur ci côté bee dem ba xam ni gis na lu dul yoon mu ne dina ko dénoncer ñu ne dañ koo fay comme ku wax ci Macky dañ laa fay ah ay ca nan dem Macky moom kenn gëmu ko te yàlla tax kenn bëgg ko léegi nag Sénégal moo am yow nit ngay liggéey ñu war la gëm ñu ne déedéet bàyyi la di def kiy wax te nit melul ni mu waxee ni mu jëfe la mel mais loolu la Euh, en tant que ki nga xamante ne da ngay défendre le président Macky Sall loolu xawula jaaxal tuuti faree fee jékki-jékki naan sama Michel Borbé laa koy yóbbu ndax li ma xam. waxul loolu dafa ni am na loo xamante ni il faut ñu arrêté ko parce que tey ñi ngi topp naa nangam xale yi nangam te xam naa ñoo xamante ne ay leader Pastef la bëgg a jaboliser Macky Sall moo tax ñu jox xale yi paas ñu leen tukki leen. loolu la wax mais loolu bu ko gisee tamuy chroniqueur sañu léegi gis na leen ñu ne nangam nan dem réew mi nee naa la réewum par par loola dëgg amu fi ku ne sa dëgg nga yor nan dem rek léegi moom arrêté nan loolu parce que nangam léegi ña ko arrêté nan xool bu ñu tëddee ak seen conscience seen propre responsabilité ci loolu moom it na xam li muy dox bu dee dëgg la na ko doxal rek fii yàlla rek fi nekk de. kontaan nañu Alioune Mbaye ñu baal lañ ko tàggoo. jërëjëf ñu ngi leen di fay bu baax di leen jox seen wàccuwaay di leen jéggalu ci déplacement bi di santaat bu baax mouvement jóg jot na di gërëm sunu coordinateur président Abdoulaye Timbo disons moom la ñuy yóbbul sunu parrainage yi des incha allah pour nekkaat ci liggéey bi jusqu'au près di campagne ba campagne ñu contribuer lii tax président Amadou Ba jël réew mi mu nekk continuité di njariñal Sénégalais yépp salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf ça a été un plaisir Aline Mbaye di kontaan itam ci disponibilité bi ami chers fidèles internautes yaakaar naa ñoo ko gisandoo tey Aline bay la ñu seet si woon fi nga xam ni moom mooy euh, Pikine waxtaan bi am na solo te dina doon jëriñ ci yéen ñuy seetaan di leen jox très prochainement ak beneen invité di d'ici là portez-vous bien merci